jërë ngeen jëf juróomi nit ci nit suñu corona woon ci réew mi wér nañu libération mi xëy joxe xibaar bi fu wér la ko wekk ubbil journal bi ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr ba muy bilan démb ci cas coronavirus yi am ci réew mi fa la waxee ñaar fukki nit ak ñaar yu ñu testé ci institut Pasteur ñaar yu ci amee coronavirus bi mu fekki fanweeri nit ak juróom-benn yi ko amee woon lépp lépp di fanweeri cas corona ak juróom-ñett waaye yàlla na ci ñooñee am na ci ñoom juróom yoo xam ne faj nañu ba ñu wér mu des fanweeri cas ak ñett yu nekk ci traitement ci juróomi cas yooyee ñu faj ministre de la xam le ne kenn ki mooy parentalu ñaari at ko bàyyam wàlloon ca Touba waa ji demoon ca hôpital Roi Baudouin bu Géejawaay ak jabaram ji mu ko wàlloon wér nañu ñu fekk ñaari kaay yu ñu njëkk a ci mi mu di doomi Angleterre bu jigéen bekk tubaab bi njëkk a dugal corona bi ci réew mi boo boolee lépp muy juróomi nit yu corona woon te ñu faj leen ba ñu wér docteur Aloyse Waly Diouf directeur de cabinet bu ministère de la santé doon it porte-parole kuréel gi ñu samp ci réew mi ngir xeex ak coronavirus bi di ñu wax ci l'observateur ne manees na am yaakaar ci ne fii ak fukki fan jàpp fukki fan ak juróom ak tan mën naa am ci yëf yi yi yëf yi di coronavirus bi mu ne li ñuy jéem fi ñu nekk ni moo di fexe ba benn kaa ba ñu jugee bitim réew di dugg ci réew mi li ñu naan kilifa réew mi dafa mel ne dafa am lu ñuy nëbbu ci mbir mi docteur Aloyse Waly ne mukk xel xalaatul ñuy jéem a nëbbu askanu Sénégal dara ci mbir yi professeur Makhtar Camara di virologue ne ñu ci l'observateur fàggu geeg fagaru geeg defaru gi ku yóbbu gën ko yokk gën cee taxaw ndax mën nañoo faj ko am coronavirus ba a am ci réew lay doon bataille à huis clos ndax tëj nañu frontière yëpp muy ci jaww ji di ci jéeri ji di ci géej gi lépp la ñu tëj jumaa yeeg jàkka yi ci ndakaaru sax Le Quotidien jël na dogalub tëj leen lépp rek ngir di moytu coronavirus bi di law ci Sénégal témoigné nañu juróom-benn fukki milliards ak ñeent la état bu Sénégal fas yéene génnee ngir dugal ko ci xeex bi ñuy xeex ak coronavirus bi soleil national di ñu leeralal koppar yooyee tënku ci plan de contingence toll ci juróom-benn fukki milliards ak ñeent ana nan lay demee lenn li ci état bi ci des ci contribution partenaires juróome plan di Amadou Hott la Sénégal nee nañu moo ko xamle démb ci jano bu mu séqoon ak taskatu xabaar yi juróom benn fukki milliards ak ñeent ñu fas yéene beggandal ngir xeex ci ak coronavirus bi jëf jooje Sud Quotidien mi ngi ko tuddee plan Macky Sall la tribune mel ne ku naa ñu ndax yàlla ne coronavirus bi ni mu lottali économie bi dafa dem sax ba jéggi dayoo covid 19 bi wàll na koom gi ba mu laati kaaf Aminata Touré njiital conseil économique social ak environnemental ne ñu ci Vox Populi mbas mi ku koy caaxaane rekk xamuli xew dañoo war a fàggu fagaru geetaru ba dëgër taxaw xeex a coronavirus bi jëlee ko fi bala mu yegg foo xam ne dafay ëppi loxo suur soo mel ne ko naan ñu bañ duree jàmm ndax ci jamono ji ñu déggee juróomi cas coronavirus ñu faj ci réew mi ba seeni borom wér fa la ñu déggee ci sous préfet bu ndaam di Mansour Diallo mu ne moodu moodu yi ñoo ngi wéy di ñibbisi di yoxosu di dugg Touba ci lu kenn yëgul sous préfet bi ne ci Touba am na ay immigré yoo xam ne ñun ñoo dem fekk leen seeni kër génne leen jël leen yóbbu leen ñu quarantaine leen ci Vox Populi moom Mansour Diallo sous préfet bu ndaam ne ñu te moodu moodu yooye bu ñuy ñëw yoonu suuf la ñuy jël ba dugg Touba